sero lañuy def waye sirru baangi ni tok khalis lepp sero la bo ca marqué 1 man na indi 1 million 1 franc da nga dul xébaté waw million deureum dañoo waxton ci waxtatu takusan wi ni ñu tok dëkk ba ca ginaaw am problème ñaar fukki junni te 10 heures lañ ko wara faj million na dërëm demal jullee gi fa timis ñu la wormaalee ma ñëw buñ la xeebee ma toog ndax ku la xeeb man la xeeb ndax noo bokk franc gi dërëm dem julli ji timis waa dëkk ba xeeb ko ne moo soxlaas ñaar fukki dërëm dërëm di ñëw moo ñàkk ñaar fukki junni dërëm di ñëw moo ñàkk fayda te xeeblu boppam di reer woowuñu ko ba ñuy julli woowuñu ko di tëdd fàtte ko mu fajaru dem six heures million téléphoné ko na ko noo def waa dëkk ba mu ne ko dañ maa xeeb mu ne ko kon du ma fa ndékkee noonu naa la ku la xeeb man la xeeb un franc un million franc noo bokk franc ji te farlu naa ci yow te te boo jógee ci man ma manqué te bu ma dolli koo ci yow nga yokku kon waa dëkk ba man la ñu xeeb loolu laay wax seex mi melut noonu xeebut daa xam xéewali yàlla ku xam xéewali yàlla doo xeeb doomu aadama miim aadam dellu miim deel ci la ñu bind doomu aadama